siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp luy siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp luy